la Cheikh Ndoy. Cheikh Ndoy di responsable APR Benno Bokk Yaakaar Thiès Nord ñëw tey ci fête de la jeunesse bi muy final tournoi amateur bi nga xam ni suma rak moi xarit Babacar Gueye Mbaye mooy parrain bi bokk ci mouvement bu monsieur Charles Émile Aboussis je pense que c'est tout à fait normal parce que nous partageons la même coalition nous partageons la même commune tey politiquement lepp luma nek mom dana ci ñew lepp lu may def babakar mo ci njëkk mo ci mujj kon rafetna na buñu ko parrainelee bis bi ma ñew man tamit andil ko suma présence physique andil ko suma présence morale andil ko suma appui ñew and ak mom ci bis bi parce qu'il le mérite hein. babakar mérite largement tay lepp lo xamé ni mën nañ ko ko jox ci commune nord j'ai l'habitude de le dire ne la babakar ñun mën nañ ko mak mën nañ ko jiitu université mais tey amul dara loo xam ne ëppale nañ ko ko donc bu ñëwee tey ba ñu parrainé ko lu mel nii mu ànd ak ay mbokkam bu gestoo war na gis ay magam war na gis ay nitam et que loolu tey mooy message mi nga xam ne ñëpp dañ ko war a lancer suñu biir ñun il va falloir que nous soyons beaucoup plus solidaires lu nit nekk ñun ñëpp ñu ànd ñu jàppale ko ci parce que tey Babacar bu réussir fierté Thiès la fierté Thiès Nord la fierté ndaw ñi la kon en dehors bu dul dara du politique du dara yu mel nii bu xewee dañoo war a teer suñuy ambition nëbb suñuy jëmm wane ko parce que am na loo xam ne moom du Babacar moo ko mën a wax. parce que tey bu ñu toogee ñu ne Babacar est un doctorant en droit ñi ko xam bëriwut ñun day doon fierté ñun ay magam yi nga xamee ni ñoo ko tette woon université bi muy ñëw nekk ci ñun. yëppluwul boppam lépp lu mu mën mi ngi koy def te loo mën a wax ci Babacar fenn ngay terminer mooy ku gëm Thiès Nord la.

ndaw lu mel ni Babacar képp moo mën a ànd ak moom sur ce aussi ma ci fasante coloré ak waa mouvement Charles bi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii ci zone nord zone est ak zone ouest di leen ñaanal seen compagnonnage ak Babacar yàlla may leen ci ndam lu kawe seen jot du ñu dugg na kër maam alaaji wax dëgg yàlla te ñu xalifa di bi sëriñ Muniru di nuyu njabootam di nuyu njabootu El Hadj Ahmad Baro yëpp di sàkkuwaat ñaan nañ ñu gën a ñaanalal Babacar ndax Babacar it loo ko wax lu dul xadra El Hadj Ahmad Baro li ñu naan bambara soo bëggee mu dégg la na nga ko tëggal jémbe Babacar loo ko wax lu dul xadra El Hadj Ahmad Baro waxoo ko dara kon ñu ngi ñaan ci barke El Hadj Ahmad Baro lépp loo yootu yàlla nañ nga ci am ndam lu kawe sa jot di nuyu sama ñoom frère ñoom Serigne Cheikh Kandji su ma rek yi ma fi fekk ñoom Samba Diokour ñoom Samba Télé ñoom ñëpp di leen ñaan ensemble Thiès Nord ñun ñoo ko mën a liggéey yàlla nañu ko yàlla jox ñu liggéey ko ci liggéey bu am solo servir ces populations je vous remercie Babacar Berti Diop coordonnateur Thiès Nord, euh, mouvement Soldat citoyenne, dirigé par le Sieur Charles VI. Nous sommes très contents euh, de participer, sinon de parrainer, au nom du président Charles-Émile Abdou cette fête de la jeunesse de Thiès Nord, en son nom et en notre nom. Vous savez que nous sommes venus euh, accompagner notre frère Babacar Gembayi, qui est le parrain, qui à son tour a remis le parrainage à, à son mentor, je dirais même Charles-Émile Abdou euh, nous conduisons une délégation formée de plusieurs responsables du MSC, notamment le coordonnateur de Silma Mambiram Diouf, le secrétaire général Sambo Djokou Diouf, le président à l'organisation euh, Ibagaï, et encore, à mes côtés, vous avez euh, qui est le parrain, mais aussi qui est le président des jeunes du mouvement soldat citoyen. Vous savez, le mouvement soldat citoyen, c'est moi dans la formation des femmes, mais dans l'accompagnement aussi des jeunes au plan sportif. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à être aux côtés de notre camarade Baba Gembei euh, pour magnifier ce gestes euh, de, porte symbolique. Parce qu'on euh, ne choisit, pas n'importe qui pour parrain. Si on choisit Babaka Gembei, c'est parce qu'il représente quelque chose pour la jeunesse. Mais ce qu'il représente aussi, Babaka Gembei le représente au niveau de notre mouvement soldat citoyen. En tout cas, le sieur charles emile Abdoussous ne s'est pas présenté aujourd'hui parce qu'il a un calendrier très chargé, mais il nous a instruit de venir le représenter aux côtés de notre ami FR, Babacar Donc euh, nous avons assisté à une très belle finale. Hein. C'est vraiment une belle finale de football. Je me disais que euh, euh, est-ce que Babacar, ces gens-là ne viennent pas des des centres de formation, mais pour vous dire que nous avons assisté à une très belle finale et nous sommes très heureux aussi d'être là aujourd'hui. Assalamu alaikum wa Kama Elaz. Assalamu alaikum wa Thiès. Je suis leen nuyu kenn ku si santam ah di commencé di nuyu xalif sëñ mu nuyu njëgën mi nga xam ni mooy suñu kilifa ñëpp di nuyu sëñ Motala njëgën nga xam ci lañ ah di sant bu baax waa yi parce que je pense que tey kàddu yi foofu commencé à cant ndax bis bi jàpp naa ni du lenn moo ko lal lu dul ci ndax de pense que jëm ji taxaw fii amul dara loo xam ne mën na koo jox nit loo xam ne daf koy yéem donc bu ñu jëlee lii jox ma ko dama ci sant yàlla mais aussi di ci sant Pape di sant aussi ñu mu ànd ak ñëpp di leen wax ni sama xol sedd na sama xol gën naa sedd na bi ma ñëwee ànd ak samay mbokk ànd ak samay xarit ndax tey dama ànd ak waaw mouvement si citoyen defar sa gox bi nga xam ni kilifa gi mooy la directeur Sall Emile Abdou Ciss sama teg change nag du ma taxaw fii sax di ko wax ndax jàpp naa ni moom mooy man maay moom politique bu nekkoon tayxa dama naan Sall mooy suma sëriñ donc pour wax rek sa fi ma toll ci moom moo tax bi ma joxee lii def ma lu delloo ko ko ndax man dama benn particularité mooy damaa bokk APR mais sama kilifa mouvement la yor te teewul yàqul ma dara ndax nangul na ma loolu jàppale ma si di dimbali ma dooleel ma donc tey bu ñëwee ma gis fi suñu coordinateur Babacar Bétou juuf gis fi suñu coordinateur Mame Biram Diouf gis fi Iba Gaye Samba Diokul gis fi kañ yi sama xol lay sedd guy guy ci beneen côté bi sama mbokk yoo xam ne ñoo bokk APR muy ñoom Mbacke Ndiaye muy ñoom Sidi mooy ñoom Ndiaga mooy ñeen ñëpp nga xam ne dañoo ñëw gunge ma ci bis bi

collabo ak yow lu ñu gëm la parce que ndaw nga baax nga te yéene nga ñu te yéene boobu nga am si ñun aussi jàppal ni bu ko lañ am ci yow mais tey bit bi dafa am beneen contentement boo xam ne dama ko ci am muy dama am benn xarit boo xam ne naam politique wul mais lu ma nekk kenn du ko jiitu mi ngi taxaw je me nomme monsieur Henri Fall ndax tey lu fi am mën naax wax moom la te mën naa wax ne rek ah kii de bu defee lii peut-être moom moo ciy feeñ wala moom mais eh, gis nga mi moo ngi fee taxaw te yàlla xam na ne lépp ko def donc sama digganteeg moom dama koy ñaanal bu baax eh, yàlla yàlla gën koo yokk sant aussi samay mbokk ñëpp ñëw nañ di di di di daal baax a baax di wax tamit nag finance bi comme ni ko waxee rek je que a été belle je pense que ku ñëw këmam laa ji gis nit ñi xam ni fête la te lii la woon rek parce que bi nga ko jox aussi loolu la woon tout le monde de fraternité kenn wut ci am am kenn wut ci dara mais juste rafet mi lay lié entre les habitants de Kër Maam Elhadj et de Thiès Nord et tey ku gis fii xam nga ni loolu am na donc daal maa ngi sant ñëpp rek parce que tey je pense que discours bi discours pol discours bi rek la mën a nekk. waaw kuy kuy kuy kuy def politique rek je pense que am nga ay ambition mais ñun doo nekk ay ndaw am ay kilifa et je pense que comme ni ma ko waxee sama njëlbeen kàddu man dama am ay kilifa politique donc mënu may wax samay ambition. te aw ma si ndigal mais à long terme ñaan naa yàlla nekk kilifa gu mag ci Sénégal mais loo gis temps la loo gis heure la loo gis moment la et je pense que boobu ñëwagul gul bi li ñu war mooy mu bëri mu néew li ñu mën ñu koy jàppale askan bi di def naako naako parce que àdduna moom dara xëy sot waaw tey moom je pense que plaidoyer plaidoyer bi lenn rek mooy di mitirlu

problème emploi c'est un problème mondial loolu ñëpp xam nañ ko et personne ne peut nier que le président Macky Sall def na fi ay jéego yoo xam ne ñëpp si mën a teg seen tànk donc damay ñaan jeunes rek ñu jéem a approprié wu programme président jéem a jël ay initiative et aussi di ñaan le gouvernement mettre à tous les jeunes devant du travail au Sénégal loolu moo nekkoon ñaax yoo bëggoon ñaax sama mbokk ay ndaw yi